donc Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar moo tax na ko Serigne Cheikh daan waxee ñu war di xeetale suñuy wuute te bañ leen a xeexale donc mu nekk réew moo xam ni jàmm lañu fi bëgg ndax ku nekk xam na li xew ci yeneen réew te jàmm moom moo gën lépp jàmm moo gën lépp moo jiitu ci lépp mooy tax leneen lu mu mënti doon mën a am ñu dëgmal nag ay élection fii lu yées benn at février incha allah 2024 la ñu ko jàpp ñu ko ma bëgg leen a wax rekk ni mooy li ma wax ci bataaxal bi bëgg naa am naa yéeney bu ma ca eggee ak jàmm dese bakkan dese wér te suñu boroom dajale ko namm-namam ak coobareem bëgg naa bokk ci élection yi nekk candidat à l'élection présidentielle ci février